Assalamualaikum, suñu mbokk internet yi ñoo ngi leen di siyaar baax di leen nuyu di am kontante ak mbekté torop ci téw bi nga xamni dañ ko fété seen émission do hiduna tay nak auto bi dafa am ñaari mbir yo xamni auto bi am yene yi gën ko léral bu baaxa baax mbir yoy nak yaakar na né ndam la ci ñun waye tamit ndam la ci ko xamni dafa safo liggéey bi ñaari mbir yoy moy yan mbir bi ci njëkk moom mooy démb am na xibaar bu nu joxe fii ci tuuxi doona boo xam ne jaar na fi muy ñaari mag ak rakk te mag ji génnewoon woon rakk ja ca France yàlla dogal na ne benn kilifa gu mag ca faranse woote na fi ngir mën koo dimbali kookee nga xam ni loolu loolu dal waaye nag li ci am moom mooy ku ne xam na ni suñuy contact dafay bari te yàlla dafa dogal moom woo nañu numéro bi nekk am nañu ko ñu ngi ñu ngi ñu numéro bi am nañ ko waaye dañ ko enregistré xëy na lañ ca bind lan fàtte ba mënuñ jox kook moom waaye nag ñu ngi koy lancé appel bu fekkee gis na vidéo bi na woote ci numéro bi mu wootee woon su ko defee dinañ ko mën a boole kilifa googu ba yàlla mën ko may mu am liggéey bu baax te barkeel ndax émission bi loolu lay jariñ mooy génne ay solution ak i njariñ benn naa ngi noonu ñaareel bi mooy fan yële paase waxoon nañ leen benn xale boo xam ne dafa nekk Argentine daan yónnee magam lu toll ci fanweeri million pour magam tabaxal ko kër yàlla def kër googu jàppandiwul mu delaat mu delaat Argentine am fa feebar bu rëy feebar bu mag boo xam ne dal na ko fa Argentine ba mujj bi xale ñoo dajale foofu 3 million ngir bëgg koo faj yàlla antuwul xale boobu nag am nañu ay nouvelle am ne xale bi ñibbisi na fii ci Sénégal yàlla dogal na sax woo nañu ñun démb am na yéene ñëw fii ci plateau bi ngir nettali ci làmmuñ borom la dàqee bu ko defee loolu lépp ngeen xam ne waa kër gi seen liggéey moo toll foofu loolu mooy firndeel liggéey waa kër gi ni muy doxee ginnaaw loolu nag ñu jublu ci li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moo fi am tey ci na nga xam ne ma nga amee Argentine lan moo xew Argentine dafa am waxambaane góor yàlla boo xam ni fii mi fii la juddoo màggee fi yaroo fi yàlla def nekk mu teel a dem tukki dem Argentine ci jamono yu muy neex dëgg-dëgg ba mu fiy jóge nekk dafa bàyyi ay wéy juróom jàppuñu ci dara mu dem ak njomom ak ngorom ak xam la ko yóbbu teel caa taxaw ba mu ca taxawee nag yàlla may na ko ak tuut mu tabax benn kër goo xam ne ci la ñaari way juróom dëkk yàlla defaat na mu delluwaat te réew moom di góorgóorlu góorlu gu am solo ba mu waññoo waatee ci ñaari lu ñëwam ba ci la ko ay way juróom wax ne ko tee ngaa jël soxna boole ko ci ànd ga bu ko defee muy tax ngay mën di dem ak a ñëw ndax xam ngeen waxambaane bu fekkee dafa tukki te bàyyi fi yaay wala bàyyi fi soxna ñaare mën a yàgg àll moo tax mag ñi daan digal ndaw ñi bu ñuy tukki nañ fi bàyyi soxna loolu dana wommat ndaw sax ndax mu gën a góor waaja ndax mu gën a góorgóorlu pour mën a teel a ñibbisi waa ji nag def na ko yàlla dogal mu dajak sono su baax te barkeel yàlla na yàlla nattal say boobu waaye nag waaju delluwaat na ca ginnaawam ndogal gu rëy mujj na caa am ca ginnaawam ban ndogal la mooy ñaari way juróom ya ko meññ dañoo génn àdduna ci ginnaawam génn gu xaw a yéeme loolu nag nekk tiis ci moom te boobu xale la nekk njàqare ci moom jaaxle ndax amul benn mbokk bu ko taxaw loolu nag def ku dikkee bu yéeme ju day waar boo xam ne waaye xam ngeen xale yi am na ñoo xam ne ay jàmbaar lañu ndax nee na ma daaw da ba ma loolu dalee mu nekk lu tiis lool ci man waaye nag ma des sunu borom mi nga xam ne moom mooy aar mboolem kum na mu aar nee na nekk yàlla dogal dëj ba weesu ma nekk Argentine juróomi at après ginnaaw ne sama ñaari waajur làqu nanu te man la ñu amoon te doom maag sama benn rakk bu ndaw bariwuma fi ay mbokk loolu ndax miinuma leen dama yàgg tukki sama benn jaay képp laa jotoon a xam yàlla def nekk ma jënd benn kër ca benn site bii ñuy wax ci asak naa nga xam ne yooyu jamono la fa jëndoon benn terrain ba mu fa jëndee terrain ba. bobo fofu alla la won kër yi bariwul woon waaye bi amone vision japani bu ma jinné fi téré d'ici quelque temps rek téré bobu mën na nekk lu yaatu dëkkuwaay mën na fa am ma mën fa dëkk xoolal ma xalé bobu am xalat bu rafet ta jek tubaarakalla waye nag yamu ca dafa jël xalat bobu ak katan gi mu am boole ko ak ndijaayam fasiyena and ak mom mu ci yoon bobu mu jël nijaay jooju nag fii may wax ak yéen nii moo yàq dund xale boobu ci yàqin woo xam ne yaakaar naa ne dëgg dëgg ko sax du neex ndax xale bi ba mu jëndee terrain ba noppi dafa ànd ak nijaay ji ba foofu ne ko fii laa jënd nijaay ji ne ko fii baax na xale ba nuyontoog moom jox ko addiyee bu takku ne ko kon maa ngi dem Argentine su ma góorloo ne tuut su ma àndee xéewal ñu boole ko tabax ngay sama baay di sama yaay ngay sama lépp ginnaaw samay ñaari waajur dañoo dañoo làkku mu nekk nag xibaar boo xam ni dafa xaw a yéeme ndax xaw tiis trop ndax yenn saa yi ñu indil ñu fi wax wax boo xam ni sax dañu lottu wax ko waaye nag euh, bi nga xamee ni woon na ndijaay ji wax ko baat yu yéeme yooyu mu ko wax di yaay ne ko incha allah bul am dara lool na xari soo demee ci jooju la réew loo am rek indil ñu tabax mais yàlla xam na ne di yaay dox daanaka sax doxewul noonu nijaay ji xale bi nee na mujj bi ma di ko yónnee trois millions lu ma am for yónnee ko quatre millions yu ma am for yónnee ko nee na ma daaw da tabaxul dara li gën a yéeme mooy su sama fa bàyyi woon sax ngir yaakaar ko dundee da koo far jaay suuf si nga xam ne moom la fi xale bi bàyyi woon sax ndiyaay da koo jaay jaay boobu mu ko jaay nag tax na xale bi xamuñ dara ne mu nekk Argentine du góorgóor rek waaye bu yemoon sax ci jaay boobu rek du du du nekk lu du garaaw mais li jaaxal mooy lan moo tax nijaay di rakk ci yaay mbaa mag ci yaay xale bu ndaw bu làkk fanweeri at ak ñaar dem Argentine di liggéey di jàppal ay waajuram di leen taxaw bu dégg bëccëg attan na liggéey nu mu méttee xale bi yónnee xaalis nga attan di ko lekk ca teewaayu bakkan lekk goo xam ne ko yow doo xalaat dara xale boobu sonn gi mu sonn Argentine ba démb ci guddi rek mu may woo mais bu yemoon ci kër googu sax nga ne waaw ma ngi fa di liggéey wóolu ko am ci moom yaakaar xam nga yaakaar dafa foor ndax soo yaakaaree nit ki doo essayer comprendre dara xale yu bari ñu ngi leen nax ci ay millions yu bari bari bari bari mais wuy bett na ma boo dégg ci àdduna rek ki la ko teg mooy ki nga amoon ci moom confiance ak yaakaar mais su fekkee xale yi dañu nekk bitim réew mais kan la na war a yaakaar ku dul ñi fi nekk ku dul seeni mbokk te mbokk yooyu ñu yaakaar mbokk yooyu ñooy na xale yi di lekk seeni alal jaay na suuf soosu ba pare wax xale bi ne ko suuf soosu xam naa ni àll la mënoo fa tabax léegi danga nga fay wéet dama bëggoon léegi nga bàyyi ba ci kanam su ko defee kër yi gën a bari su ko defee nga doog ko tabax ndeka jaay na suuf ci bu yàgg xale bi ne ko kon loolu baax na man ko yaay sama kilifa loo wax baax na nee na ma daaw de ma ne ko naa man ma dama ko ne Loh def baxna ndax man yaay sama bayi, yaay sama yaay awma kenn kudul yow ak sama soxna ba pare soxnam lak ben dom nek lo xamni dafa dafa jeme mune xale bi dama beggone ñu def projet man ak yow ñu bokk ko xale bi ne ko xayma ñaata la tollu ci projet bobu mune ko 15 millions mune ko projet bi lan la mu ne ko dañuy ubbi benn poulailler boo xam ne lépp ci am ñu ciy liggéey di jaay ay ginaar jaay ay nen xale bi ne ko waaw léegi nu ñuy def mu ne ko kenn ku ne ci ñun dafay dugal sept millions cinq cent muy quinze millions wallahi ajib nee na ma daaw de dama daanaka la ma ko jox sax ëpp na quinze ëpp na ëpp na ëpp na sept millions cinq cent ngir am ci moom confiance ak yaakaar daaw da ndeke na nijaay ja def am na jëfin ñaaw yoo xam ne mais boo ko defee xale xale bi du ko xam ndax njum la mag mais xajul ci xale ndeke nijaay yi dafa dem fekk benn playe boo xam ni dafa am ko ko moom ba liggéey ko liggéey bu rafet waxtaan ak kooku fusionné ak moom jox ko un million léegi comme dafay am ginaar foofu day am accès ci playe bi day mën a foto playe bi day mën a def lépp ndax actionnaire la fa mais utalul xale bi playe mais ki mu ak ak sonaleel kooku xamul la xew nekk li bëggoon mooy den déployé boobu am ak ci biir di am ay photo foofu di am ay wax mais ba léegi ki mu jox kooku ne ci plan bi comprendre muy photo di yónnee xale bi xale bi jàpp ne loolu mu ngi produit comme gagné na confiance am ba xale bi gëm ko gis yëf yi ni mu doxee mu duggaat ci beneen projet aussi ne xale bi fii ci. Euh, euh, jas xam nga Sébikotane am na ay kër yu fa xaw a yomb yoo xam ne jamono jooju mu loon doon dikkee ay trois cent mille quatre cent mille mu ne xale bi léegi sax mun nañ fa am foofu six terrain su ko defee bu jamono yi mën nañ koo jaay xale bi ne ko am benn problème mu ne ma daaw de ma defati xaalis calculé waat xaalis yónnee ko waat mu ne ma wër na Serigne Touba waxuma la sax terrain mais dara joxu ko ba fii may wax ak yéen nii barki Seydina Muhammad joxu ko dara joxu ko dara dara dara dara dara dara xale bi topp na ko ñeenti at joxu ko dërëm mu toppaat ko yeneen ñetti at muy six ans mu mujj jox xale bi ñaari million te naan ko pulaay daa daanoo bi Abdoulaye Wade daanoo ci nguur bi Macky Sall yëg ci ci lañ arrêté mboolem travaux yi ci la xaw ma lan lan changé xale boobu fu may wax ak yow ni mu ngi Argentine amul benn bis boo xam ni depuis mu wax ma lii ba léegi du ma déggante ak moom mu nekk ci tiis ak njàqare parce que mujj na jël soxnam yóbbu ko dëkk bi ay maamam nekk mu ngi fii rek sorewul mu nekk acte boo xam ni man mënuma wax ni mu ñaawee ci mim réew lan moo tax xale yi ñi ñuy wóolu toujours ñoo leen di trompe ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal ndey wala ki nga xam ne yow yaay ndijaayam façon xeetu mbon boobu sénégalais jël man loolu moo ma jaaxal xale yi nekk bitim réew sonn nañu trop jaaxle nañu amatuñu confiance ci kenn ci Sénégal parce que ku wóolu rek mu nax leen te nañu amee dafa metti bataaxal yi nag ngi doon indil li tax ñu di ko indi mooy ngeen prudent ci li ngeen di def mooy ñi dégg ko fexe ba far baax mais ñi nga xam ne xamaguñ ne nit capable na lu nu mel mu prudent ci lépp loo xam ne daf koy def ndax émission bii loolu moom moo ko tax a jóg xam naa nag mënuñu ci gën a xuus bu baax waaye l'essentiel gi moo nekk nii pour kenn ku ne ci yéen mun ci jël njariñ indi ñu fi benn xibaar pour muy tuut sa kenn ci beneen fan waaye pour les futurs ku ñeneen ñi bëgg ñëw ci yeneen jamono ñu mën cee jël ay leçons loolu moom moo sabab liggéey bi nii muy doxe pour jël leen fàttaliwaat rek ajuma quatre heures et demie day am direct boo xam ni kenn ku ne ci yéen fu mu nekk war naa mën a dugg wax xalaatam. ci ni nga xam ni loolu mooy tolluwaayu thème yi muy diggante quatre heures et demi jàpp euh, dix-huit heures yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar bu baax a baax. bi leen wax ne ne bu leen fàtte mukk di abona ci sit bi ndax abona bi mooy gën a yomb ndax bu yëf yi génnee rek nga mën a am notification bi ci yow mu gën a gaaw waaye nag bu leen fàtte ne ñun ak yéen benn lañu 24 heures sur 24 ci loolu la ñuy dox. ngir accueillir leen xaar leen ngeen ñëw dégg seen bataaxal numéro bi nga xam ni moom mooy daw ci bande de bi boo leen ci wootee déggan di jot waaye nag balaa ñu tàggal ko ni ma ko waxee léegi rek xale bi nga xam ne moom moo nekkoon ak magam France magam génnee ko kër gi am na benn kilifa gu mag buy laaj buy laaj ci xale boobu ñu kon taagam mais dañu dafa xaw a réer suñu suñu dossier yi dañoo bëgg mu woowaat ñu ci même numéro bi ñu xam kan la mën koo boole ak kooku ba yàlla def ay wërsëg a mën a ko jërë ngeen jëf